jëf ya saar ñaar bi bésu màggalu pantekot agsee ñoom ñépp booloo nañu ci benn berab ca saasa riir jollee asamaan mel ni ngelaw lu gaaw te bari doole daldi fees dell kër ga ñu toog te ay làmmiñ yu mel ni safara feeñu leen ñu tasaaroo ci seen biir tong ca kaw kenn ku nekk noonu ñu fees ak xel mu sell mi ñoom ñépp ñu daldi wax yeneen làkk ni leen xel mu selli mi maye ñu wax ko fekk boobu amoon na ay yawut yu daloon Yerusalem doon ay nit yu ragal yàlla te bokk ci xeeti àddina yépp bi ni ñi déggee riir ma nag ñépp dajaloo daldi waaru ci li ñu leen dégg ñuy wax ku nekk sa làkk ñu waaru te mu naan gis leen ñiy wax ñépp ndax duñu waa diwaanu Galile naka la mën a ame nag ñu di leen dégg kenn ku nekk ci nun ñuy wax ci sa làmmiñ wi nga nàmp nun ñi ay part waa medi ak waa elaam ñun ñi dëkk mesopotami réewu yawut yi kapados pont ak asi di waa firisi pamfili misere ak weti libi yi dend ak sireen nun ak gan ñi jóge Rom yawut yi ak ñi tuub ci yoonu yawut yi waa Kret ak arab yi nun ñépp ñu ngi leen di dégg ñuy yégle màggaayu yàlla ci sunuy làkk noonu ñépp waaru ba jaaxle lool ñuy waxante ci seen biir ne lii lu muy tekki waaye ñenn ñi di leen ñaawal ne waay ñii dañoo màndi ak biiñ ci kaw loolu Piyeer taxaw ànd ak fukki ndaw ya ak benn mu wax ci kaw di yëgal mbooloo ma ne mbokk yawut yi ak yéen ñépp ñi dëkk Yerusalem déglu leen bu baax te xam lii ma leen di wax nit ñi màndiwuñu ci ni ngeen ko fooge ndaxte ñu ngi ci yoor yoor rekk waaye lii mooy li yàlla waxoon jaarale ko ci yonentam yowel ne yàlla nee na ci bis yu mujj yi dinaa tuur ci sama xel ci kaw nit ñépp seen xeet wu góor ak wu jigéen dinañu wax ci kàddu yàlla waxambaane yi dinañu gis ay peeñu te màgget yi di gént ay gént waaw ci bis yooyu dina tuur ci sama xel ci sama kaw jaam yu góor ak yu jigéen te dinañu wax ci kàddu yàlla dinaa wone ay kéemaan ci kaw ci asamaan ak ay firnde ci suuf ci àddina muy deret safara ak ay niiri saxar jant bi dina daldi lëndëm weer wi deretal balaa bisu boroom bi ñëw di bés bu màgg bi ànd ak ndam booba nag ku woo boroom bi ci aw turam dinga mucc yéen mbokki Israël dégluleen wax ji yéesu mi dëkk Nasaret nit la woon ku yàlla dëggal ci seen kanam ci kéemaan ay jaloore ak firnde ya yàlla defoon jaarale ko ci moom ci seen biir yéen xam ngeen ko moom nag jébbale nanu ko jaar ci nas bi yàlla dogaloon te xam ko lu jiitu te yéen rey ngeen ko ci daaj ko ci bant jaarale ko ci loxooy bàkkaarkat waaye yàlla dekkal na ko daggal ko buumi dee ndaxte dee mënu ko téye daawuda wax na ci mbiram ne saa su ne gis naa borom bi ci sama kanam gannaaw mu ngi ci sama ndejoor kon du ma raf moo tax sama xol sedd may woy sama bànneex te it sama yaram di tëdd ci yaakaar ndaxte doo bàyyi sama ruu ci barsàq te doo seetaan sa waaju sell mu yàqu xamal nga ma yoonu dund dinga ma bégloo ji ci sa kanam mbokk yi mën naa leen wax lu wóor ci mbirum maam Daawuda ne dee na te suul nañu ko bàmmeelam mu ngi ci nun ba tey waaye yonent la woon te xamoon na ni yàlla diggoon na ko ci ngiñ ne dina teg ci nguuram kenn ci askanam kon gis na lu ñëwagul di wax ci mbiram ndekkiteel kirist ne bàyyiwuñu ko ci barsaq te yaramam yàquwul yéesu nag yàlla dekkal na ko nun ñépp seede nañu ko yàlla yéega na ko ak ndejooram te jot na ci baay bi xel mu sell mi mu dige woon ba tuur lii ngeen gis te dégg ko ndaxte du daawudaa yéeg ci asamaan waaye moom ci boppam nee na boroom bi wax na sama boroom toogal ci sama ndejoor ba kere may daaneel say noon ci sa kanam na bànni Israyil gépp xam bu wóor nag ne yéesu moomu ngeen daajoon ci bant yàlla def na ko boroom ak almasi bi bi ko mbooloo ma déggee naqaru xol wu metti jàpp leen ñu daldi ne piyeer ak ndaw ya ca des mbokk yi lu ñu war a def piyeer tontu leen ne tuub leen seeni bàkkaar te kenn ku nekk ci yéen ñu soob ko ci ndox ci turu yeesu kirist noonu yàlla dina leen baal seeni bàkkaar te may leen xel mu selli mi ndaxte li yàlla dige woon yéena ko moom ak seeni doom ak ñi sori ñépp di ñépp ñi yàlla sunu boroom di woo ci moom noonu mu artu leen ak yeneen wax yu bari di leen dénk ne rëcci leen ci niti jamono ju dëng ji ñi nangu ay waxam nag ñu sóob leen ci ndox te ci bés booba lu mat limum ñetti junniy nit yokk nañu ci ñoom ñoom nag ñuy wéy ci njàngaleem ndaw yi ak ci bokk ci damm mburu ak ñaan ci yàlla ragal jàpp ñépp te ndaw yi di def ay kéemaan ak ay firnde yu bari ñi gëm nag dañoo booloo te bokk lépp ñu jaay seen suuf ak seen alal séddoo ko ku nekk ak la ngay soxla te bés bu nekk ñu saxoo teew ak benn xalaat ci kër yàlla ga tey damm mburu ca kër ya ñuy lekk seen ñam ak xol bu laab tey bég di màggal yàlla te am yiw ci wetu nit ñépp noonu bis bu nekk borom bi di yokk ca mbooloo ma ñi mucc